Assalamualaikum guys. yi bayi ini kijam man man kijam ngi alhamdulillah. jàmm baax dama indil ben application bu ama am solo ci telepon. Aplikasi application bi day pose sa application téléphone yi maanaam day pose sa application yi sa bi la nga whatsapp do jot ben message bu nek whatsapp te bo duggee whatsapp am connection. wala nga yufi. sa wifi dua message du wacc whatsapp wala nga dugg youtube di seetaan video. video video video do gis ben video youtube day melni amo connection. wala facebook wala twitter wala yenen application yi nekk seen téléphone application bi nag disponible na ci play store fin video bi na ne woon nan ngeen télécharger application bi tamit balaa ñuy commencer bu fekkee nouveau nga ci chaîne bi bul fàtte abonné activer cloche de notification bi tamit bul fàtte like vidéo bi lu am solo la ci chaîne bi léegi dañuy dem ouvrir application bi application bi moo nekk nii léegi ñu patienter li charger léegi bu chargé ba jeex da ngay bës fi mu def croix bi nii ci côté bi après nga nga demaat ci suuf nga bësaat croix bi ci côté bi léegi après dina application yi nekk sa téléphone yëpp application yi nekk sa téléphone yëpp moo nekk nii après da ngay bës fi mu def off ak on nga bës off boo bësee off bi mu dem ci on après mu yóbbu la nga def annuler boo defee annuler après nga bësaat croix bi ci côté bi léegi ñu tànn application bi ñuy pause comme ça ñu ñuy pose YouTube wala WhatsApp comme boo posé WhatsApp doo jot benn message ci WhatsApp boo posé YouTube doo gis benn vidéo ci YouTube léegi balaa ñuy pose YouTube dañuy dem YouTube ouvrir YouTube moo leen suñu YouTube nu muy comme balaa ñu koy pause instant bi pause gun YouTube bi gis ngeen vidéo yi ak photo yi nekk YouTube yëpp day ñëw day normal comme YouTube ni muy fonctionner gis ngeen day normal comme YouTube instant bi pause gun suñu YouTube léegi dañuy dem ci application bi ñu pause YouTube bu demee ci application bi pose YouTube bu duggaatee YouTube benn message du ñëw léegi ñu dem YouTube ñu boo ko bësee nii rek YouTube day pause après ñu def pas maintenant boo ko bësee rek YouTube day pause boo ko bëggee dindi tamit da nga koy bësaat pause bi dañ léegi ñu dem xool YouTube après nu muy mel ba pause nañ ko instant bi léegi ñu dem duggaat YouTube xool nu muy mel. léegi bu ñu duggaatee YouTube benn vidéo du ñëw nii rek lay def ba keroog ngay désactiver YouTube benn vidéo du ñëw day mel ni amoo connexion boo ko defee WhatsApp tamit noonu lay mel boo ko defee WhatsApp benn message du wàcc ci WhatsApp boo ko defee Facebook noonu lay mel tamit benn comme ça du charge dara doo gis dara day mel ni amoo connexion te am nga connexion wifi bi mu ngi nee ci di tàkk te su ma comme su ma dindee pause bi nii suma ma duggaatee YouTube mes af ah, vidéo yi day ñëw léegi ñu essayé ko dem ci beneen application comme ñu pose ñu pose benn appli ñu dindi ñu dindi YouTube bi ñu dindi YouTube bi pose beneen application léegi ñu pose WhatsApp comme ñu pose WhatsApp léegi WhatsApp simple bi moo nekk nii léegi ñu pose WhatsApp léegi bu ñu posé WhatsApp dañuy dem ouvrir suñu WhatsApp GB envoyé message ci WhatsApp simple bi ngeen gis benn message du ñëw léegi ñu dem ouvrir WhatsApp GB léegi numéro bi ñu posoon léegi moo nekk nii léegi ñu envoyé ko message comme ñu def salut Les gis ngeen sama wifi mi ngi tak message bi dem message bi dem na gis ouvrir whatsapp bin envoyé message bi gis message bi whatsapp day bloqué ou day pause comme amo connexion gis ngeen message bi whatsapp day pause comme amo connexion Les xolal suma day message ci whatsapp comme ça ma envoyé message ni ci whatsapp benn message ñëw te ci numéro ci numéro bii laa envoyé message léegi maa ngi envoyé benn message comme ma def nii ça tamit message du dem doo mën a envoyé message ndax dangaa pause whatsapp gis ngeen message bi du dem ndax dangaa pause whatsapp léegi ñu ñëwaat ci application bi boo bëggee désactiver whatsapp bi nga pause da ngay ñëw rek nga bësaat whatsapp pause bi désactivé gis ngeen damaa désactivé whatsapp rek message bi ma envoyé woon gis ngeen salut moo ñëw noonu ci kaw damaa désactivé whatsapp rek message bi ñëw ci kaw léegi nan ngay télécharger application bi ci Google Play Store da ngay dem ouvrir sa application Google Play Store boo demee nga tàppe NetBlocker boo tàppee NetBlocker nga def recherche lien bi mi ngi ci description vidéo bi léegi application bi moo nekk nii ngeen installé ko ouvrir ko pose application bu la neex li moo nekkoon vidéo tey bi bu fekkee vidéo bi neex na la bul fàtte abonné activer cloche bi partager vidéo bi pour chaîne bi gën a am doole kon gaay beneen vidéo incha allah